ku tax ak moom mënoo ñàkk bañ a aborder sujet lamb. Euh, Gris Bordeaux finalement c' est le plus grand perdant. est ce que je sais pas est ce que Gris Bordeaux amul lu mu làkk ci suuf te waxu ko parce que mbër bu am fitu jël deux dix millions yi bëreetuma parce que rek danga doon wax ak promoteur kon donc am na fu mu ko teg fi mu ko teg nag moom moo xam xëy na ci ngëm yàllaam la ko teg te nangu moom ak promoteur bi nu mu def ko waaye c' est pour la première fois mu am Gaston Mbengue la ci làmb bu dee tëgg làmb mën na wax ay waxi Gaston yaakaar naa ni waxu promoteur du ma wax sax waxu Gaston waru promoteur waruloon a découragé mbër mbër mbër ma ne dinaa delloo dix millions mais Gris Bordeaux il est libre c'est un homme man nit ku am liberté man dama am liberté moo tax je veux que ñëpp am liberté ku nekk li ngay def sa sañ-sañ la liberte am la def na ko mais heureusement lamb ji mbër yi duñu jeex Gaston gis na Bombardier boole na ko ak Balla Gaye yaakaar naa ne kooku beneen mbir a ngi noonu. Bombardier yi euh, <laughs> Balla Gaye euh, mën nañu wax ni que bi Balla di ñàkk combat boobu moo nekkoon le des arènes mën nañu wax ni que combat bi double enjeu la ci ki nga moom Balla Gaye. non combat bi lépp Balla waaw moom mooy nekk am pression moom mooy def li muy def Bombardier du def dara lu dul ñëw bëre bëreem avec lucidité parce que un an moo ko dese benn deuxièmement daanoon na Balla Gaye Balla Gaye moo war a ñafe pour ñaar. moo war a ñafe pour relever le défi jël revanche moo war a ñafe pour mën a continuer yoonam ndaxte Bombardier bu bëree bu daanee jeexal na bu daanul jeexal na ah kon bu dee 45 ans yi yem nañ ci man je ne suis pas d' accord avec les 45 que gis naa avec Balla Gaye numéro 2 45 ans yi ça ne l'arrange pas ça n'arrange pas la lutte Balla Gaye numéro 2 bi muy bare bi muy bàyyi làmb dafa am doole. war a mën a bëre keneen ak keneen. kon bu nu nee 45 ans. et te gisuma benn discipline bu nuy appal nit ak football yaay football ba doyal rek li bàyyi na. bosk yaay bosk boxeurs am na ci ñoo xam ne nan 50 ans. tey loolu yàggul CNG moo fi indi ay 45 ans. mais ñoom tubaabu joor ñoom Mor Fadam ñeneen ñi ñoom Mbaye Guèye doo ñoo ñëpp bëri dëkk lu am plus de 50 ans. mais nag règlement la buñ ñu respecté ko mais bu ma doon CNG bii ñëw dama ko fii jëlee waa nit ñi mën a sport la da ngay am 45 ans am doole lépp mi ngi affaire sport mi ngi dépendre ci wér-gu-yaramu doomu aadama am na ñoo xam ne 30 ans la ñu am mënuñoo bëri am na ñoo xamante ni mën noonu am 50 ans ba léegi mën a am a bëri am doole mais daal combat Balla Gaye ak Bombardier ci kaw Balla gay ñoom ñoo war a seet seen bopp waaw waaw waaw ba coow li bari <laughs> Gaston dafa am benn benn bu ma def Gaston bi muy tëgg Lac de Guiers ci biir club booba Lac de Guiers amul vingt ans bu amee vingt ci la yem comprendre nga baal ba ah, xale yi ay xale la ñu woon amuñu woon ku ci fa fayeeku 20 millions yaakaar nga ni fayeeku nga adduna ko ci biir léegi fayeeku noonu sa 75 millions am nu kër am na nañu jabar am nañu njaboot donc changement am na xale yi changé nañu mentalité bi day changé du bokkul ak Gaston Mbengue 2005 ba ngay dajeeg Bac Seras Balla Diouf ñeneen ñeeng ñeneen ñoom Balla Gaye Modou Lo booba ñooñu ay xale la xale yooyu nag ñoo mujjee ko doon mag am responsabilité il faut Gaston tamit muy sóoraale loolu ñii du ñëw daan waxal déedéet ñooñu boobu États-Unis boobu amuñu oto comme daanaka. boobu amuñu jabar danañu mais loolu toll nañu benn standing boo xam da ngay respecté loolu. néanmoins Gaston c'est Gaston Mbengue moom moom la mel boo nekkee moom da nga koy c'est un grand promoteur parce que li may wax yëpp ñoom ñoo ko fekke woon ñoom la woon ak moom parce que bi muy jël 20 di leen jox boobu kenn matu ci 5 mais mu respecté leen jox leen ko parce que nag moom ñoo def classe boobu ñoom ñëpp ku ma ne ku ne 20 laa ko fay dama ma ne ko gas xanaa da nga bëgg a yàq làmb mu ne ma non damay dundal làmb da doon dundal làmb ba def loolu mais nag ñooña ak ñii doonatuñu benn loolu et xale yi itam dañ ko respecté dañ hmm. ko jox cëram c'est pas parce que ñoom it am nañu loolu mel nañu li ma wax ba pare aussi ñu bañ a jox cër Gaston Mbengue Gaston c'est le doyen Modou Lo Ama Baldé finalement l'alter bi mu am nii Modou Lo Ama Baldé y a aucun problème loolu tamit nañ ko wax ma am a Baldé xam na ne y a aucun problème Modou Lo xam na ne y a aucun problème combat bi dafay am hmm. bu dee neex na yàlla saison bi teg basket amul football amul handball amul dara amul. Mhm. kon lamba amul. léegi nag bu yëpp ubbee. borom confiance bi Boy Niang <laughs> moom moo xam moom Boy Niang mais man daal damaa ragal damaa ragal Tapha Tine ragal Tapha Tine ndaxte Tapha Tine xaw ma kañ la mais ragal naa ni bu nu moytuwul dina mos a doon des arènes. <laughs> waaw jërëjëf waaw waaw waaw waa waaw lii lu ma def la nii. innovation la mais léegi mu deñ dafa am lu ñuy waaj rek pour def ko waaw.